man nag je suis artisan depuis quarante ans de profession kon lépp luñ ci wax rek xam naa ko li si am solo nag ci kilifa gi lay jógee jëm ci njaboot bi jàng métier yomb na waaye mën ko bu boo ko ñoo mën a génn réew mi moo jafe léegi xale yëpp mën nañ liggéey waaye y a pas de nag état moo ci mën a jàppale ndaw ñi jàppale ci xale yi former ñan les formateurs

ndax man bi wax ak yow élève la depuis 40 ans maa ngi bokk ci fédération bi gën a mag Sénégal muy la FENAF di fédération nationale du professeur de l'habillement y a des académiciens yoo xam ne ñu leen formé c'est des académiciens de Paris ñoo ko ñëw formé leen formé 28 30 trente bacheliers tey boo demee de la force foo dem ñoo fa nekk te métier Sénégal li ñu jàpp rek mooy ku jóge daara ja ku ñu dàq sem 2 nga jàng ko déedéet métier resté foofu léegi métier da am niveau d'abord am niveau BFM mun naa dem ca kaw waaye fekkee sa njàngu tubaab sorewul nga war a yor centimètre war a yor mètre war a tracé war a xam leneen dama ni li ngay mën mooy loo añee rek ngay mën a am ay doom loo reeree te nag loolu ñu ko war a dépassé dañu war a di produire jël xale yi forme leen utal leen des centres de formation jàppale leen dafa leen des groupements des GIE dafa des petites fabriques yoo xam ne ñett ñeent juróom fukk mën nañ ci dem ànd GIE di liggéey que soit la maçonnerie que la menuiserie la cordonnerie ou la coiffure am nañu xale

des milliers d'artisans ma j'ai 8 milliards mënul dara il faut les accompagner sur les équipements sur les formations techniques ba nga xam ne tey ku liggéey boo génnee jaayee ko ci réew mi ñëpp jënd madame Khadija, Dieng wax na ko léegi dañuy dem foire ñoom mais gis les ne finition du Sénégal ak finition bi nga xam ne boo demee Gana yi wala Afrique ñoo ko ñëw duñu bokk benn yoon nos chemises nos vestes ça reste jusqu'à présent li ko manqué nag mooy des accompagnements yoo xam ne état rek moo ko mën a gàddu dimbalee ko nit ñi ut des grandes centres de formation yoo xam ne pour lan la pour renforcement de capacité rek la parce que jàng métier pare mën na métier waaye nag li mu manqué il faut ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah